واجعله دابا مسكن تعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon topp ci seen euh, jotaay yi nga xam ne ñu ngi ko doon am ak yéen Euh, ci euh, diirub jamono yii yëpp bi nga xamee ne kon Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na ko suñu borom euh, guddal aw fanam te defal ko ak wér sumb na li nga xam ne rek moom mooy ubbiteeg complexe muy daara yi ju mag yi nga xam ne moom la taxawal fii ci Touba. ñu jàpp ko nag juróom-benni fan ci weeru février bi nga xam ne si moom la ñu dëgmal dëgmal seen télévision Al Mouridiyyah di ci ànd ak yéen rek ci ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk léggéey bi ñu war ko taxawu ci ay leeral yoo xam ne daañu ko indil ci naka la la ñuy yeggee ci bis bi ak lan mooy wàccaay wi ak it li nga xam ne moom mooy liggéey bi ñu tëral ci biir euh, université bi ngir ndongo yi mën a yegsi waaye it mën a def seenum njàng ci ni nga xam ne si noonu la ko bëggee loola waral ci jataay yooyu tey ñu ànd ak Serigne Ahmad Badawi Mbacké euh, mi nga xam ne moom la Serigne bi dénk lu bari ci liggéey bi teg ko ci loxoom euh, mu di ko saytu ak di ko taxawu ñu xam ne it am na ci taxawaay bu am solo ndax bañ ko ko dénkee ba léegi daanaka mën nañu yendalul fanaanulul yitteem yépp mooy fexe ba li nga xam ne loolu la ci sëriñ bi namm te bëgg ko ci loolee mu mën koo taxawale noonu kon mën nañoo nuyoo ak moom rek laata ñuy dugg ci waxtaan wi sëriñ Abdou Bari wi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu lay nuyu bu baax di la gërëm di nuyu bokki taalib yëpp di nuyu bokki xisbu tarxi yëpp tàmbale ko sëñ Yuusu ak mboole mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji mm-hmm. ak bokki jullit yëpp bokki murit yëpp bokki taalib yëpp bokki jullit yëpp. d'accord euh, bi xam naa li ñu bëggoon tàmbalee rek mooy euh, lan mooy jubluwaayu sëriñ bi Cheikh mu Mountakha Mbacké euh, ci taxawal université wala complexe bu toll nii ci Touba. waaw ju jubluwaayu sëriñ bi moom mën nañu wax ne mooy rek li <coughs> walla xam naa baat bi may jëfandikoo nag moo may xaw a jafe waaye mooy firndeel gën a jëmmal rek. loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala defal na ko Cheikhul Xadim radiyallahu anhu sëriñ bi bind ko wax ne sunu borom defal na ma jàngukaay boo xam ne bépp xam-xam bu am njëriñ des ko fay jàng képp ku bëgg a jàng te mën faa ñëw jàng si waaye boo fa jàngee ba noppi mën koo yaatal ba njëriñ li mën a tas ci àdduna bi yépp te loolu rek mooy li fi indi woon bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi itam wax na ko ba mu teg xeer bi wax ne yàlla kalimatullahi al-ulya loolu te loolu moo fi indi woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doonoon liggéeyam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mu waxoon ne nag dafa bëgg daara joo xam ne day tàmbalee ci kiy dal baasin ba ci njoboxtan la loolu nag moo tax ñu jàpp ne kon daara lay doon joo xam ne du bàyyi benn xam-xam bu am njariñ bu ñu war a jàng waaye day bàyyi xel képp koo xam ne itam bëgg ngaa jàng war a jàng te toll ci jàng moo tax bi ñu koy tëral ñu tuddee ko mu jàmma Cheikh Ahmadul Khadim di tarbiyati wa takwin wala complexe Cheikh Ahmadul Khadim pour l'éducation et la formation université nag ñu bari moom la ñuy wax di ko barkeeloo ndax barkeeluk Cheikh Abdoulaye Lahad mi nga xam ne moo doon barab bi miire ko waxoon ne damay defal Cheikh Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu université waaye université niñ ko baaxoo xamee ñun mën nañ ko jox turu barab bi ak li fiy nekk muy turu complexe bi nga xam ne lépp day ëmb ci mboolem xeeti njàng yi. waaw kay ñu bëggoon xam it rek Mbacke maanaam euh, université bi wala complexe bi euh, yan xeetu ndongo. la fas yéene euh, produire maanaam yan xeetu ndongo ñoo fi génne euh, ci ñi nga xam ne si ñoom ñoo fi fas yéene jànge dañoo bëgg daal ñi fi génne doon ay nit ñoo xam ne mhm. ay jullit la doon mhm. ñu xam seen diine doon taalibe Cheikhul Khadim ñu xam jàngalem sëriñ bi mhm. bu boobaa dañuy doon nit koo xam ne nit ku amal boppam njariñ lay doon amal boppam amal njariñ ay bokkam amal njariñ ay am réewam ñu di ko wax alim rabbaani mhm. nga xam ne day xam diine waaye nag day am jumtuwaay yi nga xam ne moom la jamonoom laaj mhm. ngir mën a dund ci jamonoom dund ga gën a sell mhm. ga gën a tedd ga gën a yàlloo ak doomu aadama mooy day xam diine waaye day am métier diine xam diine lañ ci jublu mooy makaarimal axlaaq yi nga xam ne moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam ñëw wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq te loolu mooy lépp loo xam ne rek jikko ju rafet la lépp loo xam ne lu baax la lu yelloog doomu aadama mm-hmm. daf koy xam waaye dañ ko ci tàggat ba mu làgg ci mm-hmm. xam ne fu mu mën di def fu mu mën di dem mm-hmm. duutu mën a tàggoog jikko joojee duutu mën a tàggoog melowoowee te mooy melo yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi doon jàngal jullit ñi waaye itam ku dëppoo nag ak jamonoom lay doon koo xam ne ni ma ko waxee sànq di jamonoom laaj ci xam-xam ci waajtaay ci ci ci ci ci ci ci ci ci njàng. waaye ci jikko yu rafet yëpp da koy làmboo. waaw dafa mel ni it maanaam bari na ñu yéene lool seeni gone. bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël ndax man mii rek bari na ñu ma koy laaj mm. nan laay def ba dugg fa ñenn ñi dañoo jàpp ne maanaam daanaka euh, lu impossible la wala euh, dafa am xëy na euh, ay yoon yoo xam ne yu jafe-jafe la ngir man cee jaar naka la nit ki mën a def ki nga xam ne bëgg naa indi ndongoom muy gone mu mën koo indi ba nga xam ne dana man a dana mën a jànge ci ci ci université bi waaw daara ji moom ni ñu ko waxee daara ji daara la mm-hmm. daara Cheikhul Khadim mooy daara yonent bi sallallahu mm-hmm. a ko jullit yëpp ko bokk waaye doomu aadama yëpp sax am nañ ci wàll ñëpp ko bokk kon képp koo xam ne rek am nga ci am nga yéene ñëw ci na nga mm. xam ne sa wàll ngi ci daf di tàmbali bi nag mm. looy tàmbali lu ne day am ci benn nga teg ci ñaar jëm ci kaw waaye macha allah ni ko ñi ko yitte woon nag mm-hmm. mm, dafa xaw a dafa dañoo sakkan lool mën naa wax ne dafa bari bari waay boo xam ne moo tax dañuy tàmbali ndànk rek waaye daal nañ xam ne a ko bokk mm-hmm. ñëpp ci am wàll mm-hmm. tëjaluñ ko kenn amuj tam nag xaj ak na nag tàmbali bi nag moo mën a gut a yaatu ba àgg si ñi ko soxla ñëpp mën cee ñëw mhm. waaye ñëpp a ko bokk ñëpp ci am wàll te ñëpp ci am itam ubbite gi ñu jàpp ko juróom-benn fan ci weeru février fan ngeen toll fi ne nii ci phase préparatoire bi maanaam ci wàccaay woowu waaw alhamdulilah gis ngeen ne moom wàccaay yu na liggéeyul bu baax ak lu baax moom duñ ne noppi na waaye ñu ngi ci wàccaay yi nag bu baax a baax mhm. ànd ko xisbu yee ci lu sëriñ bi uh-huh. ak mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi di ci yëngu uh-huh. mën nañ cee tudd tubaa ca kanam di jàmbaar lool nga xam ne fii ñu toog tey ñoo ko liggéeyal sëriñ bi mën nañ ci ànd ak opérateur économique yi nga xam ne fii ñu jàkkaar lool ñoo ko liggéey uh-huh. mën nañ ci ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa liggéeykat yi nekk tubaa marché Ocass ak ñooñu waaye mën nañ jee tudd itam waa ahlu soada man lañ tudd seen sëñ Cheikh moom sëñ Abdoul Hakim man mhm. lañ leen tudd sëñ Amdi Xadi mi nga xam ne miir bii tey mhm. moo ko defar bâtiment yee ngay seen itam moo ko defar bi ko sëñ bi ne bi daf ne sëriñ bi moom duñ ko duñ ko duñ ko defaraal te dañ ko indil lu yaas ah, gis ngeen def liggéey bu yéeme bi kon jabatu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp waaye yéen itam macha allah démb sëñ Youssou woote na jataay boo xam ne mboolem kuréel yi ne ci dëkk bi waa ah. wilaaya ak waa Muxaddamatul Xidma mhm. waa waa waa waa Touba ca kanam ak waa Rawdu Rayaahiin gi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéey bi ñoom ñëpp maase nañ ci teew fi di waajal kii bi ba fi mu ne dara alhamdulilah wàccaay wi sori na lool mboolem ñi nga xam ne ñoo mënoon a jàpp tam ci wàccaay wi ñëw nañ ànd ko ak sëriñ Yuusu ak waa daara ji ngir ñu bëgg rek bu bis baa yi ñu fa soxla lépp man faa nekk ñi fa ñëw ñëpp ñëpp itam mën a ñëw ci teey fekk sëriñ bi mu ubbi eh, daara ji mm-hmm. tàmbali njàng eh, njàngale joxe ndigal ci ñu tàmbali njàngale mi ak njàng mi mm-hmm. ñaan ci bu ko defee ñëpp yeewu ko waat ci jàmm ak salaam dëgg la waaw kay bu ñu nee inauguration xam naa ci boobu la ñuy jeexale mm-hmm. ndax euh, xat nga lool fi mu ne nii macha allah euh, bu ñu nee ubbite wala inauguration dañuy tàmbali njàng mi ñu bari dañ yaakaar na kon université bi dafa noppi mm-hmm. euh, lan moo nekk suñu kanam mm-hmm. ci wàllu ko liggéey bi lu war a mottali université bi waaw kay loolu nag moom lu am solo la nu xam a mu yem rawatina nag nii ñu ko tëralee nga xam ne mboolem xeeti njàng yi ñu jàng tam am njariñal nit dañ ko fi jànge na ko sëñ bi waxoon rek buñ jànge xam-xamu tawxid xam-xamu fiq xam-xamu tasawuf wala ihsaan ak mbooleem xam-xam bu am njëriñ al di wal fiqhi wa ka tasawufi wa mm. kulli ilmin bi manaafi'a fi mm. kon liggéey bi day soog a tàmbali ah. ndax tabax yi macha allah li ñu am moom mën na si ca bu baax a bax a baax waaye doyagul nag ndax liggéey bu tàmbali la boo xam ne amul fu mu yem waaye nag doxin wi itam mm. ndax ku ne xam ne ne dong yi fi nekk macha allah dañuy takku lool rawatina daare alquran ji te ñoom fi la ñuy féete seenub dund ak seen koddaay ak seenum póot ak si lépp sëriñ bee koy def waaye njàng mu kawe mi itam ñu koy jàngale xam nañ ne dañuy soxla ñoom itam ñu di leen euh, fay entretien bi mhm. ak tabax yi itam sëñ bi noppeegut ba tey kon daal ñi xam ne dañoo tàmbali njàng mi mhm. waaye ni njàng mi di doxe noonu la liggéey bi di doxee fonctionnement bi nag moom moo gën a diisati booy seet ndax moom bis bu set la weer wu nekk la at mu nekk la kon ñuy xam leen daal képp koo xam ne tàmbale woon nga ci liggéey bi na xam ne daanaka day soog a door ndax liggéey bi yàlla amut fu mu yem waaye denc na nag bu dul yàqu dañ koy waxee mm-hmm. lépp loo xam ne nit dugal na ko ci nga xam ne sunu borom dana ko ko fulal mm-hmm. dencal ko ko joxe ko ko foo xam ne lu mbir ma bari bari bari du doy te ku ne am na yaqin yi ne loo def ci yàlla la ko Cheikhul Khadim moom lu àgg fa mu jëm la rawatina liggéey bii nag ku fi ñëw xam ne bépp koppar bu mas a yëkkati nit mas a yëkkati mm-hmm. jox ko sëriñ bi ah. ñëw na fii ah. waaye ñi nga xam ne ñoo fi tobb sas di ko ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi mm-hmm. ku gis seen liggéey bi xam ne def nañ loo xam ne kawe na njort def nañ loo xam ne kawe na njort ci wàll yëpp kon bu kenn xeeb na man fukki dërëm la am bu kenn xeeb na ne man ñaar fukk laa am wala téeméer mm. ndax yàlla moom li ko war a fi di waxe amul lu muy xeeb waaye dara réwit fi moom ndax moom moom lépp te lu ko waaye def wa maa anfaqtum anfaqtum min xayrin mm. fa huwa yuxlifu wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin mm. tajidu inda allah huwa wa adama ajra denc kon nañ doolee laxasaayu xam ne dañuy soog a tàmbali dox bi mm-hmm. waaye nag borom bi subhaanahu wa taala moo nuy gàttandu mm-hmm. ci barkeb Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne moom moom liggéey bii mm-hmm. wax ne sunu borom defal na ma ko bil Mustafa lii banal quddus madrasatan biha yasulul ada wal jahlu wal kabadu kon fu jamono toll rek liggéey bi day toll foofa kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm salaamaaleykum waaw kay maanaam ku ne xam ne mbooloo moom ñi ngi ko fi xaar mhm. euh, ci mbokki taalib yi nga xam ne si ñoo war a ñëw ci bis bi waaw kay bis bi moom mhm. euh, ni ko seriñ bi waxee rek mhm. ku ne xam ne ne bisub murit yëpp la bisub jullit yëpp la bisub lislaam gépp la waaye bisub doomu aadama yëpp la ah. ndax day lu am solo muy liggéey bu toll nii jëm ci jàng ak jàngale te xam-xam moom mooy li nga xam ne moom lañ yonent yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu jàngale ko ah. innama bu'istu mualliman moo tax sëriñ bi nag fonk yëgle bi nag wax ne na ñëpp yëg ne liggéey bi tàmbali na képp koo xam ne mën ngaa ñëw teewe si ko nag na nga ñëw ànd ko moom ni ko Cheikh Mamadou Bachir waxe woon keroog moo tax mu ne rek eh, xew-xew yi daa dajaloo te bari mhm. moo tax xëy na mu di ko yëgle waaye nag ku mën a ñëw nag na nga ñëw ñu fàttali leen ci bis boobu itam moo taseeg bis bi nga xam ne mooy màggaluk Cheikh Abdoulahi borom dër bi moom itam nga xam ne kon loolu day gën a xam wane ne rek mhm. weeru rajab moom day weeru Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu di weeru lislaam di weeru jullit yëpp mhm. waaye nañ fas yéene daal ñëpp ñëw ànd ak sëriñ bi mbégte moomu santale ko borom bi subhaanahu wa taala waaye delloo ko njukkal Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne moo moom liggéey bi mhm. di lu ko sunu borom defal te ni ma ko waxee fu jamono toll mu toll fa waaye njukkal Cheikh Mahamadul Muntaxa nag sant ko gërëm ko kañ ko mhm. ci lii nga xam ne sunu borom dogal na mu tàmbali woon ko ngir liggéeyale ko Serigne Touba i'laa kalimatillahi al-ulya mhm. waaye yàlla dogal itam mu war a tàmbali nag doxin wi ñuy ñaan mu fekk ko lu bari lool ba tegaat ci yeneen ndax ni ñu ko waxee njàng moom du amul fu mat ci gis-gisam bu sori ba mu koy soññee ñetti ah. téeméeri at la waxoon ci kanam kon loolu mooy borom xam-xam bañ mas a wax ne ko ci misaal dafa am garab goo xam ne gii boo ko jëmbatee day fekk weer yu néew wala at yu néew dana tàmbalee meññ gii nag boo ko jëmbatee day toog at yu bari lool soo ko tàmbalee meññ goo ci tànn mu ne damay tànn gi nga xam ne day toog lu yàgg yàgg soo ko tàmbalee meññ ñu ne ko lu tax mu ne dama bëgg ñiy ñëw bu ñëwee xam ne jaaroon naa fi kon lii mën nañu wax ne jeexit la ju fiy des ba ba àddina tuddi bu ko defee kon nag moom ñi ngi koy yëgal bokki taalib yëpp ñëpp ñëw ànd ci cant gi ànd ci mbégte mi waaye ànd ci ñaan yi mm-hmm. sunu borom nangu jëf ji nangu na ko sax ndax defal na ko Cheikhul Khadim ba noppi ah. waaye nag ñëpp gën a laxasaayu fas yéene ànd ci liggéey bi ku defoon loo mënoon na ko yokk ku tàmbalee gutoon na nga ñëw mm-hmm. bu kenn ne liggéey bi noppi nag day soog a tàmbali ah, ci wàll yëpp nag <laughs> muy borom xam-xam yi ci xalaat yi ci gëstu yi ah, ah. waaye rawatina nag borom ñi nga xam ne dañuy am yëkkati seenu ñaq di ko ci def tam wóor leen ne ni ma ko waxee benn dërëm du jàdd fenn lu fi waaye dugal na la wóor ne fa ko tax a jóg lay dem ndax bu dee wàllu finance bi sëñ bee ko yoral boppam sëñ bee ko yoral boppam ah, lu fi dugg Cheikh Ahmadul Muntaxa moo ko génn ci ci loxol boppam signature ba ko génn Cheikh Ahmadul Muntaxa la te ay boroomi xam la ko dénk yoo xam ne dañ koy saytu ba nga xam ne dañ ne ko lii war naa génn mu génne ko mm-hmm. rawatina nag ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo yor seen liggéeyu bopp mm-hmm. di defal seenub liggéey seeni bopp kon la ca dugg xam nañ ne fu mu ko fa waroom xam ñi nga ànd ñi nga xam ne ñoo laxasaay woon yor seen xam te amoon yéene doon ñaan képp képp bunt buñ mën a amee ba liggéeyal ci Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu ñoom itam tey lañ leen gën a soxla ndax xam-xam moom mooy loo xam ne loo ko gën a joxe mu gën a yaatu gën a yokk gën a barkeel kon kon foo ñu ngi sant ñëpp di ah, gërëm ah, ah. di ñaan ñu yegg ci ak jàmm te sunu borom lépp lu ñu ci def sunu borom gàttuñ ci ak tawfiixam ba niñ ko yéenee ak niñ ko bëggee ñu mën koo defee ñu nu kawe noonu ñëpp ñëw ci jàmm nekk fi jàmm salaam yeewi ko waa ci jàmm te lu ñu fi def suñu borom nangu ko te fayal na ko Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu amin barki sëñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf eh, sëñ Ahmadou yi Mbacké ñu ngi koy santaat bu baax a baax ci jotaay bi nga xam ne si moom la ñu baaxe woon ñu àndoon ci rek ngir gën a leeralaat ak waajaat li nga xam ne moom mooy bis bi ak woote bu mag bi nga xam ne juróom benn fan la ci weeru eh, février atum ñu war a daloo nag li nga xam ne moom mooy euh, complexe bi wala université bi wala mu jàmma ngeen ko mën di wooyee rek mooy bërëbu jàngukaay bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha taxawal na ko fii ci Touba ngir mottalee ko yéeney maam ji Cheikhul Khadim kon ñi ngi sant ñëpp di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci yeneen di jotaay wasalaamualeykum wa rahmatullah واجعله دابا مسكن تعلمي وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفيم